waaw man la de wala chers internautes euh, nuyu nañu leen bu baax a baax euh, muy arrivé de l'honorable député bi Marie Sagna moo ñëw pour euh, def mu ngi suñu ñëw <laughs> Bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi, merci pour les informations. maa ngi nuyu di bien on est très bien. Je commence. Bonsoir. Bonsoir. Guy Maurice Sagna. Minimum, minimum 5. madame a j'entends nag gis nañu ne dama dugg ci Vensania ñëw na ci centre de vote bi nga catholique ginnaaw bi nga xamee ne nag daal di li mu wax a jël ci ba noppi mi gis ci euh, isoloir bi euh, naka def euh, li nga xam ne mooy seen devoir citoyen kon en attendant ñu daal di koy xaar mu daal di génn daal di dugal li nga xam ne moom mooy enveloppe bi voilà choisir na ba noppi mi ngi di dem la may ma la photo la photo. la photo oui. ah la photo c'est bon.

Ablaye John Ablaye John merci. waaw. Euh, euh, euh, ah, ok. Ah, mais. mais nekk nga mu honorable ah si. wala da nga xam résultat yi ba pare mais Ami Ami. mais comme ah, vous avez déjà été député. waaw mais bon on ne connaît pas encore les résultats du département. c'est bon. est-ce que doo ñëw si waaw d'accord allez si léegi pour ça tuuti rek yow John. John waaw bu fekkee c'est bon. Ngoné xanaa fës kaldu bi moo ko jàpp. kaldu bi moo ko jàpp moom la añee tey. doy c'est bon. voilà donc euh, euh, monsieur Guy Marius Sagna vous êtes euh, candidat de liste de la de la coalition du parti Pastef des Républicains dans le département de Ziguinchor. vous venez d'accompagner votre citoyen. Votre réaction au statut des donc. rendre grâce à Dieu et au peuple euh, sénégalais, particulièrement à celui euh, qui se trouve dans le département de Ziguinchor, qui nous ont permis pendant jours de faire euh, le tour des six communes du département, de faire tous les quartiers et tous les villages du département de Ziguinchor de même aller prêter main forte à nos camarades de PASTEF euh, du département de Oussouye et du département de, de Bignona. Donc euh, rendre grâce à Dieu et au peuple sénégalais de nous avoir permis cela, euh, d'avoir commencé cela euh, dans la paix, ici dans le département de Ziguinchor, dans la région même de Ziguinchor, et de l'avoir terminé euh, en beauté, dans la paix, dans le département de Ziguinchor. Euh, je viens de voter Bien entendu, j'ai voté euh, pour euh, le Djoub Djoubel J'ai voté pour un Sénégal souverain, juste et prospère. J'ai voté pour le changement. J'ai voté pour que, euh, comme je l'ai répété pendant 21 jours aux populations, elles nous ont donné un champ qui s'appelle le Sénégal, un champ à cultiver. Et pendant 21 jours, nous leur avons demandé le Kajandou avec lequel nous devons cultiver ce champ. ceux qui sont dans, dans la Casamance, dans, le, dans la région de, de Ziguinchor, savent qu'il est impossible de cultiver un champ de riz euh, sans cet instrument qu'on appelle le kajandou. Donc nous avons demandé le kajandou, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, au, au, peuple sénégalais, euh, au peuple de Ziguinchor, pour que celui à qui euh, le champ a été confié puisse euh, réaliser euh, les promesses, les engagements et la vision notamment 2050, euh, présenté au peuple sénégalais, euh, plébiscité le 24 mars 2000, euh, 2024. Euh, et nous l'espérons aujourd'hui aussi plébiscité, euh, aujourd'hui à la fin des de tous les bureaux de vote ici au Sénégal et dans la diaspora. Euh, voilà en fait euh, ce qui m'anime ce qui, ce qui en ce moment bien j'avais senti que euh, peut-être que le principal euh, adversaire euh, de notre liste, PASTEF, ce ne serait pas une autre liste, mais ce serait le taux de participation. Euh, bien avant euh, ce jour-ci, et ceux qui ont eu, euh, ceux qui ont pu suivre quelques-unes des interventions que j'ai eu à faire dans certains villages et quartiers, nous leur disions que le plus important pour cette élection-ci, ce n'est pas qui va gagner, parce que je pense que la liste euh, PASTEF des Patriotes conduite euh, par le président de PASTEF, Ousmane Sonko, euh, va remporter les élections législatives, mais le taux de participation euh, sera important. Et j'ai préféré attendre en ce moment-là pour que les autres euh, qui pourraient être, euh, qui pourraient se dire que la chose est déjà pliée, et que ce de se de voir qu'il est de voter à 17h, qu'il est possible de, de, voter de voter jusqu'à 18h, qu'il est même possible de au-delà a bien le bureau de vote. Autrement dit, c'est pour moi euh, que je me suis donnée pour pouvoir euh, message à tous les citoyens qui m'entendent, euh, Sénégal, Euh, de pouvoir euh, se pour aller voter. <clears throat> Il est clair que, j'en profite d'ailleurs pour dire, il faudra euh, le taux de participation à celui des élections du 31 juillet 2022. Il faut comparer ce qui est comparable. Une élection présidentielle, ce n'est pas des élections législatives. Et donc, euh, en, le 31 juillet 2022, le taux de participation

afin euh, d'exprimer leur avis par rapport à la marche euh, du pays. Leur vote compte, leur vote comptera. Si vous votez pour le vainqueur, le vainqueur en prendra compte. Si vous ne votez pas pour le vainqueur et que vous votez pour d'autres, le vainqueur sera obligé d'en tenir compte. Donc votre vote comptera, quelle que soit, vers la, liste, euh, quelle que soit la liste vers laquelle euh, ce vote ira. Et donc euh, nous invitons euh, tout le monde à, à se mobiliser euh, pour ces dernières minutes, pour cette dernière heure, afin euh, de donner son avis par rapport à la marche du pays, par rapport au présent et au futur. votre décision de voter l'après-midi, qui est d'ailleurs, euh, je le reconnais, une décision pédagogique, euh, a entraîné quelques rumeurs mmh. à mm. travers le pays, euh, étant distillées par certaines personnes certainement qui, qui en veulent, disant que vous auriez perdu votre CNI et par conséquent votre carte d'électeur. Est-ce que vous êtes au courant de cette et qu'en dites

je voulais mettre un peu d'ordre euh, dans mes idées. Je voulais me reposer aussi un peu. Et comme je vous l'ai dit, euh, je pense que c'est important. Si tout le monde vote le matin, personne ne pourra mobiliser euh, les autres électeurs euh, qui pensent que c'est plié d'avance ou que c'est une élection courue d'avance et que ça n'a aucun intérêt euh, de se lever. Si euh, il est important de se mobiliser et je voulais personnifier cette importance de voter, même au dernier moment. Euh, waaw mbokk yi euh, maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci seen tur euh, ak seen sant di am mbégte bu rëy a rëy voté fii ci Ziguinchor ci école mission catholique bu Néma bureau 3 di sant yàlla bu baax a baax ak askanu Sénégal rawatina askanu Sénégal bi nekk fii ci département bu Ziguinchor bi nga xam ne ñoo ñu may ñaar fukki fan ak benn. wër juróom-benn juróom-benn commune yi nekk fii ci département bu Ziguinchor def euh, village yëpp ak quartier yëpp waxtaan euh, ak askan wi saafanteeg ñoom ah, ah leen kat dina am solo euh, ñu voté ngir jub juba jubanti waaye voté itam ngir Sénégal bu moom boppam Sénégal boo xam ne yoon moo fi dox waaye Sénégal boo xam ne itam am na naataange muy un Sénégal souverain juste et sant yàlla kon bu baax a baax ak askanu Sénégal Euh, ndaxte dugg nañ si si jàmm ak salaam euh, ñu ngi ci génn euh, ba waxtu ji may wax ak yéen si jàmm ak salaam te ñaan yàlla ba keroog ñuy dépouiller résultat yëpp ñuy wax résultat bureau yëpp ba yoon wax kan moo gagné kan moo ci topp jàmm wëy ba boobu donc voilà am mbégte kon voté profito di wax ñi nga xam ne voteeguñu ndaxte si suba ak léegi maa ngi dégg ñu bëri euh, naan euh, ñii di voté euh, lim bi takkuwul xaw ma fan la toll jamono ji may wax ak yéen waaye ñi nga xam ne soriwuñu seen centre de vote ñi nga xam ne soriwuñu seen bureau de vote maa ngi leen di ñaax di leen lancer un appel rawatina ndaw yi ngir ñu jël seen carte dem daw dugg ci centre de vote dugg ci bureau de vote yi ngir voté fi ba 6 heures mën nañ voté. maa ngi nii maa ngi mandargal ne euh, mën nañ voté euh, ba 6 heures euh, voté nag dafa am solo ki nar a gañe liñ ko nar a konteel dina am solo ci moom ndaxte dina gën a fullaal gën a faydaal li nga xam ne moom la askan wi wax tey waaye itam askan wi bu votelee keneen ku dul ki nga xam ne moom moo nar a gañe ah ki gañe itam dina si bàyyi xel dina gën a góorgóorlu donc nu mu munti demee Euh, seen seen voté euh, dina am solo euh, ci réew mi ni muy doxee moo tax may ñaan may ñaax askan wi pàcc bi nga xam ne voté gul ñu daw gaaw ñëw voté ni man comme ni ma ko comme ni ma ko defee jamono ci da nga da nga tàmbali ñu ngi woon alors que ngoon waaw fii Sénégal li fi tàmm am mooy. leaders yi entre guillemets ñoom ñëpp ci suba si la ñuy faral di voté man mii di wax ak yéen sax euh, damay fexe ba teel a voté ndaxte xëy na pour bañ rang yu gudd yeeg ak ñoom seen euh, ren effectivement gulet ma voté heure bi ndaxte ay fan ngi nii ay ayu sax laa mën a wax li ma jàppoon moo di ne euh, suñu liste muy Pastef benn adversaire rek la nar a am ci élection législative yi adversaire am du beneen liste adversaire am mooy euh, li mu nit ñi nga xam ne ñoo nar vote voté nu muy toll euh, moo taxoon ma ne euh, ku mel ni man dina am solo xaar ba ngoon ngir wane ñi nga xam ne voté guñu que ngoon voté mën na nekk ba dix-huit heures ba six heures et que nañu jóg nañu mobiliser wu may lancé waat appel ñëpp ñëpp ñëpp mag ak ndaw góor ak jigéen rawatina ndaw yi nañu teg ataaya bi nañu teg match football bi nañu teg liga bi wala premiership bi te dem seen centre de vote te dem voté ndaxte lii ñuy waxtaanee tey ndaxte voté waxtaan la voté taataan la lii ñuy taataan tey mooy réew mi ni mu nar a doxee euh, fii ak juróomi at ci pàcc boobu ñuy woowee euh, assemblée assemblée nationale. alors léegi taamu bi nga taamu ñoom l'après-midi euh, tax en tout cas say noonu nañ jubal benn rumeur boo xamante ne def na le tour du Sénégal ne ah, ah député euh, Guy dafa réeral carte d'identité nationale am kon kon dafa réeral parce que ñaar am euh, moo tax ñu voté depuis le bi léegi ndax dëggal nga rumeur boobu ak loo ci euh, loo ko woon wax dëgg yàlla ndaxte defe naa ñaari fan a ngi maa ngi lëlu ñaari fan a ngi maa ngi maa ngi tëju daanaka maa ngi soog a génn bu dul démb ci guddi démb ci xaaju guddi euh, ngir dem euh, jëndi reer maa ngi soog a génn donc euh, loolu woon tëju woon doon xalaat ci yu bëri doon doon waajal yu bëri ndaxte fan yi di ñëw ak ay bés yi di ñëw gëm naa ne sama liggéey dina gën a bëri ñaari at yi passé loolu laa gëm loolu laa foog moo tax baax na ma leeral bu baax sama gis-gis ak sama taxawaay maa ngi koy soog a dégg Euh, xaw ma fan la ñu jëlee rumeur boobu waaye gis ngeen maa ngi fi euh, voté naa bureau 3 euh, joxe naa sama carte électeur te ñi ko xool mën nañ jàng xam nañ ne carte électeur la yéen sax yaa ngi yaa ngeen nekkoon ci bureau de vote bi donc li am solo daal mooy na askan wi mobilisé wu génn ci minute yii di des. am na tamit li ma xamal nekk am naa ay noonu xaw ma ne am naa noonu. jërëjëf jërëjëf engouement bi participation bi loo ci xalaat. waaw xamaguma en fait euh, lim bi euh, nu mu toll waaye lenn rek euh, laa ci wax buñ ci tollee maanaam xam ko nañ ko méngaleeg élection législative fanweeri fan ak benn ci weeru sulet ci atum deux mille vingt deux ndaxte dañuy faral di wax ne. Euh, bëy yi ci bëy yi xar yi ci xar yi euh, mënoo comparer élection législative ak élection présidentielle euh, nañu xool taux de participation bi maanaam li mu ñi nga xam ne mu voté nañ nañ ko méngaleeg bu 31 juillet 2022 mu nekkoon élection législative yu mujj yi et bu boobaa ñu xool ak nu mu mënti demee daal ñu xool naka lañ koy jàngate yan jàngat lañ ci def gëm naa ne. balaay sax euh, élection yu tey am na lu bëri lu ñu war a soppi ci suñu système électoral am na lu bëri lu ñu war soppi yàgg na nag euh, ci nu ñuy voté euh, est-ce que tey dina ko dëggal ak résultat yi mën na am waaye résultat yi lu mu munti joxe tey gëm naa ne am na lu ñu war a soppi ci nu ñuy voté fii ci Sénégal jërë ngeen jëf